mënees yi ndax dagal na yonente bi alayhi salaatu wasalaam lépp riwaaya boo xam ne gis nga mu rab ñu ngi tudd subha ci nekk ci reegali ahlul xadis zalika ñu ngi tudd subha wala ñu ngi tudd lim boo xam ne dañ doon dimbali bi si ay xeer wala yu mel noonu mais jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ci yonente bi di ko def xam ne loolu xadis bu wérut la kurus ndax mën naa nekk moyen boo xam ne ak wàññukaay lay doon bu fekkee ne wàññukaay rek ñu ko nit di jàppee mën nañoo wax ne kooku bunt la boo xam ne duñu ko tëj duñu wax ne dafa xaraam ndax ni ñuy ragale ne nangam xaraamul te fekk lu xaraam la noonu la ñuy ragale itam ne nangam xaraam la te fekk xaraamul moo tax buntu moyen yi dañuy jël suñu bopp ko foofu moo ci lan dafay am na ay moyens yoo xam ne dafa soog gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ay sabab yoo xam ne moo ko waral moytu yooyu nag mën naa doon yoo xam ne nit ki mën na ko jëfandikoo te du yàq diine bu fekkee rek am na sabab bu ko waral masalan jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam da daan toog ci jàkkaam di jàngale toog nit ñi di ko dégg ci kàddoom su nodd jotee nit ñi ci kaw jàkka ja nodd ngir waa dëkk bi dégg ko ñu def nag jënd jamono borom xam-xam xadiis yi comme ni ñu ko jànge woon ci aadaab yi weesu dafay dem ba nit boo xam ne kàddoom du doy mu gisul jën yi boo xam mooy taxaw ca fa kàlloon bi yam pour li ko ñu ci gannaaw mu tax keneen ku koy jot li li ciy waxee ci la jot li ciy waxaat ci jot li ci jot mu doon moyen boo xam ne suñu ko jëfandikoo wut ñu wax ko dégg wax bi ñëpp duñ ko dégg mu doon ba jëmi jamono ay yëf yoo xam ne ay usul la yi ñuy jëriñoo yoo xam ne foofu lu mel ne lii ñu waxee tey amul woon jamono yonente bi sallallahu la boo xam ne mën nañ koo dimbalikoo pour jot li liñ bëgg a wax nekk noonu rajo yi rek yi xew yëpp yooyu ay yëpp la ay bidaa la doon ñu togg wante dañu wax ne bidaa la ci diin kooku bidaa la bu dee ci wàllu loxo waaye bu dee ci diin bokk la sax ci diine bu fekkoon ne nit ki li tax nag kurus gëm boppam ànd ak loolu ma wax ma wax ne am na ay observation yi ñu ci war a def mooy war nañ koy jël sunu wattandiku ci mbirum jëfandikoo ko itam ñu ñuy wattandikoo wax ne xaraam na wax ñu di wax war la ñu wattandikoo itam mbirum jëfandikoo mooy lan ibnul xaaj ci yéeram li ñuy wax al madxal nee na kurus ci nasaraan lay jóge te kooku borom xam-xam bu mag la borom xam-xam yi njërum Malik ci la bokk doon dund itam ci Andalus nga xam ne ñooy doon ñu gënoon a jaxasoo ak nasaraan yi ñoom ñoo jëkk a jaxasoo ak nasaraan yi ci jullit nee na loolu ci aada yi jóge ci nasaraan yi gis ci ñoom ci la bokk booba jiitu beneen bi ci def moo di ndax nit ñi ci biir sunna am xelam àgg na ci naqari ba li ñuy wan li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ci lim maanaam mënu koo lim bu ko limee day jaxasoo bu ko defee mu door a yëg ne aajo woon kon mooy bu mel noonu pour mu jëfandikoo ndax du mën a jaxasoo lim buñ gis ci bu gën a rëy ci yonente bi wa mooy téeméer mooy téeméer defe naa ne téeméer lu xelum doomu aadama jaxasoo jaxasoo war na ko mën a lim rafet na su fekkee ne hadis bi ñu gis ci sunan abi daawud mu yonent waree ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam su doon wàññi dafay wàññi ay ko def def itam loxo lay joram lu bari ci mbokk yi da di ci juum def ni yëf yi ko sàmmoñ bi ndax sàmmoñ bi ngir nga mën a gis sunna bi dëgg dëgg dëgg bokkut loxo dajoo bi moom ngay jëfandikoo yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa jëfandikoo ay rëdd rëdd yi rëdd baaraamam xadis baa ngi sunan abi daawud nekk xadis boo xam ne bu wér la loxo ndeyjooram la daan jëfandikoo moom la daan wàññi itam lu aju ci albaaqiyaat wa saalihaat ak yeneen yu muy lim yu mën a doon kon kooku xayrul hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lekk li ci laxasowaat mooy liñ gën a gis li gën a bari bu fekkee réalité la ñu xool li nekk waaxee moo lu gën a bare bare bare bare ci xam ne dañoo war suuf di wàññi yëpp ñu wàññi yeneen yëf lay doon ci yëpp ne xam ne yoo xam ne dañu jékki-jékki ci nangam la ñu wàññi lépp ay tur yàlla lay doon wax ne ànd tëggum ñaan sax allah allah allah wala nangam benn baat boo xam ne benn sikkar boobu kenn ku rek xam na ne wax dëgg yàlla doo tudd ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi daa ko tudd benn benn tur loolu amut ndax loolu buñ ko seetlee ci wàllu teggin Eh, teggin des na foofu mu di ñu woo kilifa war a continuer rek di ko woo di ko woo ndax boo ko mu da ko lan ya Allah ya Razzaq war ko ni moo ci war a ko ya Ghaffar ya firni waaye ñëw ñëw ñëw bu di ko yàlla kilifa bu toog di di ngoolam nga tiim ko di ko woo di ko woo ngoolam nga dina jëm su dee ko wala mu ne nga nangam nga di di balaa ma tukk yow di sa taalibe mooy jóg sax si saxit sa nit suñu borom tabaraka wa taala moom moom lañ gën a war a tegginoo li ñu war a tegginoo moom war ñu ko tegginoo ak keneen ku mën a doon ndax ku bind ku nekk moo la bind yu bare bare yu muy tur wér yoo xam ne mooy tax ni ajowoo kurut boo ko seetloo di jógee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon nga ne jullit bi ngir mu wattandiku ngir mu wattandiku tudduma yi ne dafa yor ay biddaa wala dafa sikkar loo xam ne jógee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam suuf boobu war na ko wattandiku ndax li ñuy wattandiku ay lël wax bokk na ci principe yi nga xam ne jullit bi daf ko war daf ko war a melokaanoo daf ko war a góorgóorlu seen kàttanam la tax ñu ci di mën naa yor ay niiw nit ñi nga xam ne ñoom mën naa leen yor ñu gis ñu nekk ci loo xam ne am lënt la ñu bàyyi ko fa dem duñ leen ñu ci moom ñetteel bi mën naa def am lënt loo xam ne sax lënt ma dinañu noonu nañ ko jàppe waaye nit ña defe ne noonu la ñuy waxtaan ci moom ci ab garam di jox la évacuation wax boobu ñu wax rek moom moo leen ko teg kon ñëpp ñëpp day tax jullit bi wax ak am lënd moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam li mu génnee ci jàkka bi fekk da doon yaatu gaab soxna si indil ko indil ko aw ñam mu lekk ko ba noppi mu lëngat mu dugg dund muy dem am ñaari saxaab yi ñu ko téen ñu téene mu ànd ak soxna si di tàggoog moom ñu gaaw di dox dox bu gaaw mu leen leen taxaw leen ñu taxaw mu ne leen innaha safiya jigéen bi ngeen gis ma taxaw ci moom safiya la sama soxna ba xam ne yooyu daal di jooy na ko ñun xanaa suñu si fàtte itam ndax buñ si fàtte ci yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen say saaxe day daw ci doomu aadama ni deret di dawe ci biir aw yaramam kon na ngeen di wattandiku ay lëbb wattandiku kon euh, principe la boo xam ne ci biir l'islam ci la bokk su fekkee ne yooyu yëpp dajale ci mbirum kur li la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di mën nga ko wàññi ci say baaraam te moom noonu la doon jëfandikoo الباب دي ان انا جاي في حماله انا في نصران الى جوجل بجتبو لو تقوط حد ينام تكر يوحن بوك تكي كان يجب صلى الله عليه وسلم لما خم الذكر الله فرح لكم من جيت الدولة الذكر يوحن اي جدا حلا كن يسكر جيل جوات ملكه لكن لا ينام تبع عليه الصلاة والسلام دان ده يانم لك ان دجنت نيه بلنا دجلنا ولا دجل رسوان تنجل خلاص كان خلاص ونسخ نجل خم لخير الهدي والهدي محمد صلى الله عليه وسلم هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى